mi mana ko diege alima jagulumba sintana ke bi janya bolo. Tuba mana ne jegere boro manne bojina tinana ba da ya burure subhana ne ke ke ke ke ki ma tro kama abla jigo mi da ya subhana ne ke ke subhana ku bi manga da foti mo ko ba di manga tro ba da ya burure subhana ne ke ke ke ke mala we da ya Juma juma lumalia di semene fatana mogo ba je mangne trovelai a ah, trogadi adabolengo namo neri goma tiginingo namo dogonoden ya bama gwadi ɲinamamina subagani kunmi negele namo a fatolu kala mungirila ɲulo namo nítorí kó máa ban bolo nẹ. mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a bɛ taa jamana kɔnɔ n'a ma jamana daga dɔrɔn n'a dɛrɛ ma fana a bila ma a bɛ ɲɛnabɔ kelen. nba fatɔ mana kɛ sifina mana kɛ sijilɛ mana kɛ mali kɔ kan mali ɲɛ kan si mɔgɔ n'i y'a bila jiko ninnu sɛrɛ a bɛ ɲɛnabɔ dɛ. n bila denna n kolon kabiri ni dugu jɛlen na Bakelou Dourou Jalila Sénégal Thiassi Dourou Jalila Sénégal i kɔnɔ lɔnmali ya tibiri nanalen n'i ye cɛrin dabila n b'a fina barika janjo jamana kɔnɔ wa i ta ye somadenw ba cɛ ɲini dama a mana kɛ jinako de jinako y'i a mana kɛ y'i bolo simɔwi nanalen kɔni minɛ majnun Angelima a Angelima Angelima lay Angelima Angelima ah, lay Angelima ah, eh, eh, eh, eh nella koma kani Angelima tayati latiki ngongo mani zaini mo bla jibo ipa wolole furunto la makorobo somakɛ ni maɲuman ko tɛ ɲɔgɔn na mali dugukolo de ka ko caman kɛ yan dan sɔgɔ ka fatɔlu la kɛnɛya ka banatɔlu la firakɛ ka kolobantɔlu la kɛnɛya papiye tɛ mɔgɔ min bolo n'i y'a bila jiko ninnu yɛrɛ fɛ kɛ papiye tigiw ye o ti se mako ye nka ne tɛ nkalon na soma la bilen ne tɛ namara la soma la bilen awa ne tɛ nata soma de na n'i ma kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ de tɛ ka sanga ne bɛna ne tɛ laban nkalon tigɛ ma diɲɛ man ne kama sumadenw ma ban ma ban mali kɔnɔ ma ban sumadenw ma ban ma sɛnɛgali sumadenw ma ban u bɛ min wele abilaji mɔgɔ ma denw ma ban u bɛ min wele ma mali kɔnɔ cɛbaden min dan ma kankini dan ma kɔriba cɛbɛ nɔ in dan ma mankoyini dan ma farikɔnɔ tula ban in dan ee kɛli dan maba mungerima firadi maba mali kɔnɔ firadi maba somadenw maba ma mali kɔnɔ somadenw maba u maba sɛnɛgali lɔni di maba mɛnka a bɛ wɔrɔma mali kɔnɔ somadenw bɛ wɔrɔma yantumajɛ abila jima tɛmɛni baro ye simɔni wɔla munkale somaya nɔ ye k'i lamɛn. ɔ oh, maa ngi nuyu aduna yɛp mɔbali aduna. maa ngi nuyu àdduna wëndeel képp góor ak jigéen mag ak xale man Abdoulaye Djimbo maa nuyu dama génn tey man waruma génn tey mais lu betti nit betti na ko parce que yéen journaliste ma tey suma liggéey kay suma bureau liggéey kay di ma fekk tey man maa ngi ziyaare di leen nuyu leen maa ngi nuyu àdduna yëpp maa nuyu sénégalais yi maa nuyu diaspora yi ak mag maa nuyu kenn ku ak sa sant nuyu kilifa diine yëpp ci Sénégal nuyu àdduna yëpp maa nuyu kilifa ak sa ak sa àdduna wëndeel képp man Abdoulaye Djibo maa ngi nuyu leen di sant rek ku ne fi ngeen nekk yaa xam Afrique yaa maa ngi la ñaanal ak foo toll di la nuyu di la ziar tey ñu ngi dund débat tey débat bu am solo waxtaan bu am solo bu kuyu kuyu kuyu kuyu maa ngi dugg tey man du ma gaaw wax man su ma rek dama war a wax su ma la war a dama la war dama war a wax moo tey loolu moo loolu moo tax tey ma bëgg a wax parce que lu gis si àdduna na nit yi yu bëri bëri bëri àdduna dafa yëngu àdduna tàng na rawatina ji tàng lool lu ko si politiciens ñun ay borom xam-xam la borom xam-xam danga mënu defar borom xam-xam da nga war a dimbale doomu aadama yi mais soo gisi mbiri mu ngi yëngu wagul yow gis na ko wagul aa ah, deful li nga war soo gisi dara yëngu da nga war soo waru waar da nga war a amul lu suñu xam-xam bi ñun amul lu faji doomu aadama sa aaju yi loolu mooy suñu yéene loolu mooy suñu mission ñun ay mission la dox su dimbale doomu aadama yi jaamu yàlla yi di dimbale leen seen aaju yi am na yu bari mu ci hôpitaux yi maa ngi ñaanal leen yàlla mu may leen jàmm ak salaam si kaw laaj hôpital yi dem seen ngir jàmm ak salaam maa ñaan yu nekk si biir si Sénégal yu nekk si biir si àdduna yëpp maa ngi ñaanal ñoo mu di dem seen kër yi. sun adduna jullit yi dee ci ay fitna jullit yi feebar ba ñu mu dee yu dem àllaaxira maa ngi ñaanal leen yàlla mu woyofale suuf seen kaw yàlla mu maa ngi ñaanal ñu mu dugg ci xar yàlla mu xar leen àddina at boo leen man Abdoulaye Diouf ba ma wax nii man ni jullit la maa ngi woor maa ngi jullit yàggul dara su ma wàllu liggéey bi maa ngi dimbali ci jaamu yàlla kese la def di dimbale do jaam yi doo mooy suma mission lu loolu man am na xam-xam bu wóor na Afrique yi am xam-xam yu wóor dimbale doomu aadama yi su ne man am ngi bay maa ngi bay maa ngi am fukki hectare ak juróom maa ngi am ko si coton ci Mali maa ngi am fukki hectare si gerte maa ngi bay mais loolu yëpp terewul ma def suma waru liggéey bi di dimbale man social la dox lu mu am ci xam-xam si xaalis dama ko dimbale ay jàmm yi ay nit yi yàlla rek tax asan dinaa soo dimbale nit da nga am ceebu bu rëy ceebu bu dara du dindi parce que nga faji ko rek moom mu wër eh soo ko xamante ne boobu du ko laajte xaalis mais liggéey xam-xam liggéey sëriñ da ngaa jëndi xar ay nag da ngaa jëndi di dimbal ay doomu aadama yi du si ñàkk su la doomu faj ajo yaa xam da nga feebar. yaa xam diggante góor ak jigéen ku xamante yow am nga jafe-jafe sa wàllu léegi sëy wooma wooma wooma wooma wooma man su ma seet du ma jël kenn dërëm seet bi gratuit la kenn du ma jël dërëm du ma ma fay du ma fay mu ne maa mu ne seet la ba su ko seet ba nga xam mbiram lu mu doon su boobaa nga xool mbiram bu baax na mu solo alal di Eh. su lépp dafa yàqu lu ma dugg yàqu lu ma nit mu ma liggéey man maa toog fu ma dindi liggéey si yow lu mu a gaaw à 24 heures su ma waxee ma ne ma ma defar la léegi nga am si saa si benn yoon laa def su ma man maa ko defar dama gis léegi sunu ragay sunu doom yi seen wàllu sëy jafe-jafe lool ñoom bari na ñoo xam ne amul ñoom mu ngi uti kër woo ma soo ma waay sa aaju faji na man dama nekk bitim réew mënu am am kayit sonn naa def na sëriñ boo sonn mënu am kayit déedéet woo ma woo ma woo ma woo ma sa aaju faji si saa nit da nga ñëw loo nit nit da nga dem si loo nit soo ñëwee si nga ñëwee soo dee da nga dem si bàmbeel àdduna amul solo soo ko xamee rek lu baax rek mo am solo nga dimbale nit yàlla rek ta man social moo ma sonal bari dem ma jaay rek jënd camion fees yi del ay ceeb fas yi del ay meew fas yi del ay Fouga ay ay ay dem jogoog ay jàmm yàlla yii si àll yu am ay xeex dem dimbaleen ko yàlla xeex bu am Mali ku ne xam na lu xew Mali xeex bu am Mali ji xeex bu am Mali ah yëngu na àdduna yëpp mais Sénégal ji lu mu ngi Sénégal man tiit na lool. adduna dafa jeex ba pare doomu aadama su ko xam ne lu baax yàlla tax man Abdoulaye Djibo dama faji doomu aadama yi wala lii dafa la liggéey sa lépp yàqu na woo ma ma dimbale la léegi nga jóge ci jafe-jafe wala man dama am lu xamante ne dama bëgg mu jaay nangul jaar yaa xam kër yaa xam jaay oto yaa xam loo mënut a liggéey yaa xam yow commerçant la yow woo ma ma di war a boo xamante ne su ma amee seefi léegi nga teggi ba faaw teggi ba faaw faaw man maa mun loolu sa àddina solo parce doomu adama nga dem si siir mu ne la man xool na sa affaire mais lii sa aaju mënu ma ko faj loolu nekk si xool mais yow siri da nga la loon ba nu nangu jëli alal moo dee borom bi yow mënu ko faj aajom al xaram baaxul loolu bu ko loolu sëriñ yëpp laa wax conseil boobu kiriya su ñëwee si yow na lii non munu ma lii demal maara bàyyi mu dem parce que kiriya su jagale fan la jëm yaakaar mooy bi pour nga dimbale ko ci wàllu xam-xam loolu am na solo trop xool mi du sori mais am na lu mu gis si Sénégal ji lu mu gis lu mu gis am na lu mu gis si Sénégal ah doy na war de Ousmane Sonko l'enfant de Casamance Ousmane Sonko le fils de Casamance Ousmane Sonko namatu boppam bu baax a baax a baax gars yi bu ne ma fegal ñaari projet bi Ousmane Sonko mu ngi waaj a dem namatu boppam nguuru Macky Sall jóg na bu yaay yomb dafa la fexe bu dee Ousmane Sonko pour faagagal na bay bokk élection bi Ousmane Sonko li mu moom ah baaxul li mu moom man li mu seet dama seet mbir Ousmane Sonko li mu moom baaxul baaxul de ñaari projet yi projet Adji Sarr projet eh baaxul eh. si ñoom dafa def fekkee bu xamante ne pour Ousmane mën naa bay bokk élection bii pour mu bay bokk élection bii fekkee moom la ñu ngi uti nguuru Macky Sall ñoo ngi uti fekkee bokk Ousmane Sonko pour faagaagal na bay bokk élection bi na matu boppam Ousmane Sonko na matu boppam pour mu bokk élection bii ah liggéey la la jëlee man duma wantu mais foog nga ma wax lu yëngu lu ma fuus ma ko ëpp doole il ma wax su ma waxul du baax Sénégal yëngu na torop torop su nekkee question dafa bari torop donc loolu su amee ñun mën a xam-xamu yi il faut ñun wax ñun ma waxul du baax parce que doomu ñun la am yaakaar pour ñu dimbale leen. yaakaar foor na lool ku ko xam. yaakaar foor na trop trop trop trop. mali kɔnɔ nanga nga ye nanga ma bɛ kuma a k'i toro ka mɛn wa toroba bɛ kuma a bɛ lɛ toro bɛ kuma a bɛ laji fɔ mɛ kuma lɔ mali toro bɛ ŋo dɔɔni ŋo la mali a dun toro ka mɛn wa farajɛla farafinna a dun toro ka mɛn wa sɛnɛgali laginɛ an ka dun ma toro ka mɛn wa. ka ni moritani a dun ma tɔɔrɔ kan mɛn wa faransi ka dun ma tɔɔrɔ kan mɛn wa kɔdiwari ameriki ne dun ka b'a kan ma lɔri ma kan ka lokuma abilaji bɔ tɔɔrɔ ye ŋoloni na lɔri ma ka wuya kuma aji bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lɔni ye maa tina y'i bolo ma muso tina y'i bolo dɛ maa tina b'i bolo woloba tina b'i nɛgɛ. dinali fɛ ne ko n ko kunda jinɛ mi nɛgɛ pirakɛli jinɛ e ko n ko jinɛ mi nɛgɛ san ni duuru i tununnen ka ɲanɔ i ma ye k'i a fatɔ ye k'i kɛ n ko a dɔ ye ala ni jinɛ nu sɛbɛbun kɛ dilale sarati nu kɛ sarati di mɛ kuma ma mali kɔnɔ kuma kɔnɔ bɛ kuma mɔnifɔ yi tɛ bɛ tɔni kɔ ne ka ɲɛ jigi mɔgɔ k'i ni biye diya kele ma boya ni ma jawa ya duma ya e baro kan ya duma ba na bo bla baro ro ye ko ma suma isa li nga wani dégg naa ko tegal sa loxo ma ñëw tegal sa bara isa ma ñëw maa ngi bëgg a wax wax bi bariwul man dama gaaw wax mais wax bi su amee wax si soo waxul du baax parce que ñun nekk na nit yoo xamante ne adduna yëpp xam nañu monde entier mu ngi ma dégg ñun di bàyyi xel donc dafa jar ñun xoolal sunu mbiri seet ba seet seet boo xamante seet année lu xew lu war a xew ak lu xew nga xool ko si seet si suuf loolu soo gisee dara nga wax ko si Ousmane Sonko ku xam soose soose dafa am jom ku xam joola joola dafa am jom ku xam jo manjago manjago dafa am jom ah mais Ousmane Sonko gars yi jekku na ko lool lool lool lool gars yi mu génn si ele bëggul mu bokk ci jongante élection bi 2024 buur gi bëggul moom mu génn mu bokk si pege bu ne ñoom mu ngi jël bu ne ci wàllu xam-xam mystique gars yi dafa jàmm Ousmane Sonko ci wàllu jigéen ci mystiquement di ko liggéey su ko naagatal pour pour mu xaaxatal mu pour mu naagatal mu dem mu bàyyi Sénégal jàmm yoonam pour élection bi mu am. dégg nga de mais Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ku ko bëgg a torogo nga torogo xaw ma Ousmane Sonko mais dama bëgg ngeen déglu ma bu baax Ousmane Sonko nit yàlla la. ñaanal kuma agafiye demili fɛnɛ dira juru fɔ ka ɲina demili fɛnɛ dira juru bɛ fɔ subaga ni kumi negele yala jinɛ ko ma kɛ dadiw jinɛ mulo jinɛ mulo longo lo maɲuma ko oh. jinɛ mulo jinɛ mulo longo lo k'i firifiri k'i bi ko jinɛ fɛ o jinɛ ko bɔra a filɛ jinɛ mun de kɛra ni ko maa ngi lancé benn message ni mu gis la atla mɔgɔ ye k'a bɛ bɔ mafina k'a tɛ bɔ nɔgɔ i m'a dilan farazila k'a dilan farafina ko a tora maɲumako la sadili ye k'a dilan mali kɔnɔ mali kɔnɔ kaw n'i kɛra somakɛri n'i taara sigi sɛnɛgali k'i bɛ mɔgɔ nɛgɛ san kelen t'i dafa ye k'i faga ee eh, somariw mangi lance benn message Macky Sall le président de la République de Sénégal Macky Sall déglu nit si xel nga bañ ne si xol Macky Sall fi nga jëm baaxul ci yow de Macky soo motul sa bopp Sénégal day yëngu Sénégal fi yëngu yow la de du kenn ku du yow mu ngi ne nguur yi ay buur buur buur seen ay seen temps dafa jeex bat buur du jeexul mooy yàlla kese mooy nguuru yàlla mais nguuru yëpp ngay jeeg tan Macky doomu adama seen deret yi mu ngi tuur suba ngoon ñun mu ngi gis ko ñu demul si fan si liggéey bi Macky fait très attention ka soma la ni diw bamakɔ falen maɲumako soma la a n'a kɛ mali kɔnɔ k'a kɛ mali kɔ kan gɛn jinɛ ko de tɛ min yalɔ sira tigi mag yi ñu la conseil conseil baaxul mag yi ñu la wax loo ñoom mu ngi la wax loo xamante ne nekkul si ñoom mag demal si ndànk Sénégal mu ngi sag ginnaaw mag lu jeex jeex na góomu yàlla góomu ñeneen ci bi nga xam lii dafa jeex ba bàyyi ko mag yi du si bokk de Sénégal yëpp mu ngi mag sal day bokk non dafa mu dafa am ku préparé pour mu bokk mu nekk si place am mu nekk remplacé place kooku mu ngi jóge si opposant yi la jógee. ñaateela suma ñëw nga ko jama su mu gëri la. mais loolu day bett nit yu bari bari Sénégal ku si bokk si Macky ku ko la jëli ko mu def ko remplacer moom si élection. suma ñëw nga ba ma suma ñëw nga ba ma ne bi mu ne gàtte korobo. e mana dilan mɔgɔ m'a bɛna a tɛ mali kɔnɔ ko kan somada min ta ma kɛ dabarani ni de ye kɛ ma kɛ dabaratigi ye i mana kɛ ŋɔni fɔ la n'i m'a fɔ batara mɔgɔ n'i y'i ka ŋɔni fɔ i bɛ nimisa baro la min bolo t'a kɔ kɔrɔ n'i tora k'a sɔn nkalonbatigɛ la e n'i baara tɛ n'i laŋoni tɛ n'i soma tɛ e n'i yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ i mana sa i kelen bɔ k'u ye 2023 juru fana firi ye akili yelen le la o k'a fɔ i kelen ye somari ne ni ka jɛ kɛ nin de ko n bɛ nkalon ta ka taa somakɛ min na e na dilan mali kɔnɔ ka ko ɲɛ faso kɔnɔ ka ko ɲɛ kabila kɔnɔ dubabu min ye kelen fa bonda ni ba bonda la n'i kun tɛ tununna o i bonyanko jelitara faransi i bonyanko jelitarama fana senegali ka tila ka labako jugu ma k'o kaburu o su nale ka na u faso la nkalon tɛ kodilan o man abla jibo dama dɔw si social yɛrɛ man de mɔgɔ ye sumalige ye suman wɔn dibale dɔm adama ye man may abla ye social jibo la man mais man problème boo am sa adduna woo ma su ma mun ne ma waaw wala munuma ko mooy lu ne adduna ñaar ñaar la guddi ak bëccëg góor ak jigéen mag ak ndaw mun na wala munuma ñoo ànd mais ah déedéet man mun na lépp non yow da fen yàlla moo mun lépp lu dul yàlla kenn munul yëpp dafa ba sëriñ da ngaa war nit su ñëwee see wax la lii soo ko mënu wax ko mënu ma ko am na solo sono client mu ngi jooy day client yi eh client na ci sëriñ dem na fi dem na fi daw na ba sonu dama daw daw daw ba tey gisuma dara aga bari si si client yi sëriñ yi ragal leen si yëpp la fi nekk sëriñ ko suba da dee wala gën waa suba da dee soo ko loolu ci diwar la soxla mi nga mun na ko mun na ko mënoo déedéet baaxul ñun suñ liggéey bi ñu mu ngi judd fekk suñ maamu mama daal après ñu jël solu suñ daal waral Afrique yëpp uti xam nga bu ñun suuf bu wër di di dimbale si doomu aadama suba ngoon ah déedéet man kenn su ma xamul danga ma laaj diw dafa baax diw dafa baax ay mbokam ñoo ko waar dama laaj ay mbokam foofu la nga xam diw lu mu mag lu mu mum ak lu mu munul man Ablaye ba ma xam sama bopp du ma jël sama su ma sàgg ma dem ba bitim réew mu ne Serigne Serigne laa ay client déedéet ay tubaab ay naar ñoom mu ngi jël jég privé fekke ma man fu mu nekkee man fajj seen aju ñoom mu jóg dem seen yoon loolu mooy Serigne wala ma toog fu mu toog ma defal li nga bëgg a yaa ngi Amérique waaw loolu mooy Serigne. àddina léegi dafa tas dafa yàqu kenn xam fooy jëm kenn xam foo toog am na yu bari mun ay sëriñ la ñoom du ay sëriñ ñoo ñoo yàqu liggéey sëriñ ba léegi sëriñ yu ba am na doomu adama loo si wuti loo si jàng da am lu wóor mais loo jàngawul lu am benn benn benn tiyaam naa leneen maa ngi wax si si Sénégal su opposant yi Sénégal gars yi na mystique bu doy waar si opposant yi Sénégal pour tas leen pour ñoom mu bàyyi jubóo pour ñoom mu tas ah ñoom su motul loolu day daal seen kaw ñoom commencé na tas kenn jubóolu sa morom. Para vinani para jala, agama droga me abrinyalungu. ni tun ye bama kan ni tun ye subaga kan ye ni tun ye lɔnnitigi kan ye sumaya waliju kumakan sɛnɛgali jula kumakan an m'o bila ni yɔrɔnin nɔ ye k'o ma sumaya bila i ju o la dugukɔrɔ k'o sumaya.